te nag ay kilifa te teew fii am na ñu mbégte ci seen teewaay sëñ Maamoor Mbàkke ak njaboot nga jiite te ñu bàyyi ko sëñ Abdou Xafoor Mbàkke am nañu mbégte bu baax ci li ngeen sàkku bu mu ñëw fii tey muy caravane Cheikhul Khadim caravane bii duñ ci am lu rëy cër bu rëy rëy ci la unte ngeen dem jóge fa ñëw ci fii ci seen njagg silla ñëw fii kon bu ñu ko toppoon tey nañu jàpp ne amul benn commune bu ngeen dem rek am fii def li ngeen def fii ci diir bu yàgg kon loolu am solo la Touba am ci mbégte teewaayu population yi wane na ko ndaxte li fi teew tey depuis cinq heures quatre heures ñëpp ñëw nañu fii di leen xaar ñi gàttandu yàkkamti seen présence fii kenn sëñ Modou Mbacké si yow mi nga xam ne yaa jiite délégation bi am nañu mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem mu mel ne bu kilifa yi tànnee waxtu wii ci waajtaayu màggal di ci duggulu ci biir réew mi di topplu barabi sëriñ bi di jokkulu bokkub diine gi di soññ taalibe yi ndax lan ngir ñu maase gën a waajalaat màggal gi gën cee amaat yëg-yëg gën cee amaat yitte loolu kon war nañ koo gën a bàyyi xel bu baax te jéem a gën a joxaat màggal gëddam xam ne rekk du ab xew-xew boo xam ne day xew-xew bu ordinaire ni xew-xew yépp mel màggal ëpp na loolu màggal fukk ak juróom-ñett ci safar Euh, ku bàyyi xel sëriñ Touba suñu yaakaar liggéey boobu na mu ko bàyyee woon xel na mu ko waajale woon na mu ko gàttandoo woon kon bàyyi ba weer yu teru nga di ko door waajal sax da yëg ne tuuti na ndax moom dafa ne liggéey ba wa xalbuhu atmaraha min assasine ca assasine la waajoon ba jekk ngir tabbi ci liggéey bi la ca des nag su doon wax jamono ñu ne ay reclasse boromam di rekle ba jëy sa ñëw muy door a dogal dogal bi waaye sëriñ bi moom ca assasine la jekkoon waxal buhu at maraha min assasine kon wa azharal xidmata ama jay sa si waxal at ma min assasine mu wàcc ba jekk ca ca ca ama assasine diir bu gàtt gannaaw ba sëñ mbot ba ba sëñ Mbàkke Mor Anta Sali delloo ci boroomam waaye suñ boroom nag nekk ba jay sa sin muy door koo dogal muy liggéey boo xam ne ku bàyyi xel la mu ca waxoon eh, ak taxawaay ya mu ca am loolu mat nay fàttalikuwaat bu baax a baax a baax ndax lan dafa waxoon ne jamono ji tilim na tilim boo tilimaay boo xam ne laaj na saabu bu rëy ndox mu bari jàmbaar ju am kattan te sawar te mën a fóot te tilim ja du woon dara lu dul jikko yi ña ko jikko woon du ñenn lu dul ñun ñii jàmbaar ju mën a fóot ja du kenn ku dul moom mu soogu ko jaayante ca Cheikh Abdul Ahad radiallahu anhu wax nañu wàccaay wa ca weeru koor ga ca lixtikaaf ba ca jàkkay daarul xudus ja ba ko rasulullahi sallallahu alayhi feeñoo ànd ak àndam ya tañ signé fa contrat yoonu géej gi tam yërëm ko ca ngir nattu la boo xam ne bari aana waaye yàlla ju ko mas a bëgg bu ca tàbbee buñ ko dimbalewul day mujj yàqule waaye ba mu ko waxee sëriñ bi ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxee mu ne ko roogi laa sàkkul ba xam lu man waaye bu ko roogi att ne sama jom dékku na ko mu ne ko kon nag àgg na ci sax ndomba gi gëna a mag ci gu ñuy takkal nit ci kaw suuf muy xutbaaniya mu man koo tey yu taxañal ko li des mën naa doon ñetti weer te fal ko ko waaye sëñ Tuubaa ca gis bu rëy ba Cheikh Abdou Lahad nee na mu ne ko sama gis-gis jël na loolu tey daal li ma bëgg mooy bokk ci sa ànd yi rek muy doon kenn ci ahlu badrin kenn mësu koo dégg ba mu xamee ne agsi na foofu mu ne ko kon nag mayit duma nangu ku ma jam li ma la ci mën a dimbalee mooy lu lay bëgg dal ñu wax la ko waaye duñ la mën a fegal dara la ca doonoon ay sart mooy kon dangay génn sa dëkk bii tuuba arasa allahu dangaa ñaan sa borom ba mu aaral la ko aw ay du la fekk mukk te natto bi ay ci kaw ci kaw ay lay doon ba ñu woree ñaari fan walla ñett sëriñ bi daal di wàcc dem Mbàkke Baari Jolof ngir lan daje waajali nattu bi leneen la ca doon topp mooy sa nijaay sëriñ bu soobe ku amub cër ci boroomam la te ku am cofeel ci yow la ku am yërmande ci yow la soo tàbbee ci lii dana ñaanta bu ñaanee boroomam dana ko wuyu mooy dana teggi nattu bi bokk na ca ba mu yëgee waajtaay wa la mu doon wax sëriñ bi ngir di ko yebbutal bañ mu dem di ko wax ne Ahmadu bu ma sañoon doo dem Jolof ndax ku fa jombase doo xaal te jombas bu fa dem toj waaye ñoom bu ñu xisee dogu rek dogu nañu tumuranke gu mat sëkk gu dara desut nga xam ne ni ko Cheikh Mouhamadou Lamine Diop ad dagan yi nettalee ci irwa u nadim kero bi muy samp bantam yooyu ca maa yomba ngir di firndeel jàkka bëgg a dog barab bu dogu bu muy jullee muy jëmmal jàkka te tubaab ba di ko sempi tañ xuloo ca nañ ca xuloo taarix boobu lu siiw la waaye lu ca feeñ mooy xuloo gi muy xuloo moom yëlli say tubaab boobu te ñuy wax ay wolof la ñuy wax sax la kàddu yey naqari naqari daa mel ne lu neex ci sëriñ bi ngir ba mu gëjee dégg ku ne dama ne mu ne ah kon tumuranke foofu la mën a yem tumuranke gu metti xuloo ba sax dafa neex ci moom ngir wolof ya muy dégg kon luy ab nattu akub tuumuranke mu koy jànkonteel te jeexitalul dara ci li muy ci digganteem ak boroomam ay ibaadaatam ay nawaafilam eh, ay tagg yi muy tagg sangam ba rasulullah sallallahu alayhi wa di bind ay xasida di dajale ay gaal defe naa ne ba ko fa boroom gaawaan fekkee lam ko ca jox ak li mu tàbbal ci géej gi ak bi mu dikkee li mu indaale kon nëppaluwul benn yoon la ca gën a yéeme nag mooy su fekkoonte ne danga demoon ci jawwun académie yin muy atmosphère académique boo xam ne da ngay jàngat di xool xasida ya ko fekk ca géej gaak nattu ya ànduta ki mun jiit amutug jot doo xam lu muy mos gisul ku koy wétt li tiitaange war koo jàpp littérature arabe bu rafet ba mu fay def loolu jar na ay séminaire bis bi nga xam ne ci la duggoon ci liggéey bi bis bi la ci la liggéey bi mataat ci liggéey bi mataat dafa mas a wax sëriñ Xamsatu Jaxate di wax ak moom ci wàllu géej gi ba àgg ci fukk ak juróom-ñett ci safar mu ne ko moom day asuuna yi mag ñi daana ñett li muy waxe noonu tubaab yi loolu it ku ne xam na ko alaas yi mooy yi al mu ne ko asuuna yi bis bi takkoon nañu ko ba di ko xam nee na saabu fukk ak juróom-ñett ci safar masaana dellu si bis boobu tubaab yi daanañ ko xam luñ daan jëflanteeg moom danañ ko yokk fukki yoon ci gën koo mettital gën ko tumurankel ne ko sama borom it noonu la daan li mu daan jëflanteeg man ci biir noonu la ko daan fule lu mu ma teg ren bu déwénee dana ko ful fukki yoon tegaat ko ba ci njaareem bi mu xëyee bis booba dellu si muy séentu nattu yi jàpp ne boromam dana ca jëflanteeg moom lam ca daan jëflanteeg moom ci yaram wi am ci lu may sangam ba ñëw jëfal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nattu jeex na ak pay moo ci des ak pay moo ci des mu sant boroomam bu baax santaane it ñu santle ko boroomam koo xam ne sama mbég sa mbéga su bis bii dellu seetee nanga ma ci santle sama boroom foofu tamit njàngat mu am solo ne ci mbooleem yi ñu fi gis muy ay jafe-jafe mbaa lu ñuy lijjanti ci àddina lu ci nit mas a gis ñu ne sëñ Tuubaa nee nañ ko ci jàppale mbooleem luy nattoo ci coono ak i metit moom rekk moo ko gàddu demal boppam demaale ñu cant rekk la woote ne nañ ko ko defle yëg na ne li ci war laaj na ñu jàppale ko ci koo xam ne sama mbég sa mbéga bu fu la bis bi fekkat nag ma ci sa boroom nanga ma ci santale sa boroom mu mat a bàyyi xel bu baax kon te mat a waajal euh, boo delloo ci loolu mu doon wax ak sëñ Amsatu danañ koy faral a wax ci waajtaayu màggal bi sëriñ bi liggéey liggéey bi boroomam di ko nattu saa bu fukk ak juróom-ñett ci safar ñëwee tubaab yi dañuy ful nattu bi fukk yoon teg ko ko tegaat ko ko boroomam li mu ko doon nattoo ci digganteem moom da koy fol fukki yoon teg ko ko kero bi muy wax sëriñ Amsatu ne ko nag waaye li taxoon may liggéey ca yoon bu jëkk boobee ko boroomam déclaré ne ko liggéey bi mat na pay gi moo des nee na mbooleem la taxoon muy liggéey lépp jot na ca ba dara dara dara desu ca nga xam ne keroog ba mu ko fayee bu tàggoo woon ak moom demit du tee murit yépp am liñ bëgg ci Sëriñ Tuubaa waaye suñ borom deful noona saa bu bis bi dellu seetee lam ko fayoon ca at ma jiitu boroomam da koy fulaat fukki yoon dellu tegalaat ko ca te pay gu jëkk ga rek fajoon na ajooy murit yi waaye kon bokk yi luñ ciy jànge fii ak guñu ci luñ màggale ren bu dewee déwénee ñu màggale fukkam toppandoo guñ sëñ bambakat bañ koy nattu lu ko dal ren bu dewee déwénee fukk koy dal bi ñu koy fay ñu ko jox ren bu déwénee fukk lañ koy jox bu ñuy màggal luñ màggale ren bu dewee déwénee nañ màggale fukkam loolu la sëñ Muntaxa bëgg